Bienvenue sur Salam Vision. ci yow ne di nga toog ba ah? sa diggante góor gi déception da ko ciy bari li nga ko ciy am baax na tëjee baax waaw du ñàkk de parfois moom la ciy waral déception maanaam da dëggu xale nga mais da dëggu. moo tax à chaque fois koo jëflante rek bu amee tuuti ñor-ñor rek après da ngay découragé si seen diggante yàgg moom. Mm-hmm. mais sa bopp bi day faral di méttee benn côté waaye da nga am àndandoo ma waaw da nga faral da téere. waaw ndax bopp bi day métti ba jàpp sa bëj yi. seet nee na dina bàyyi ci kàttan suñu borom dangay fexe. nga wut kaaw kaaw boo xamul boromam. dayoo. man da nga karaw karaw boo xamul boromam nga boole ko xobu laaj karaw karaw ah, boo for nga boole ko xobu laaj nga daal di koy suuroo boo mënul am loolu nga dem ba ci sëñ fi ñu tuuree mbalit ah, nga gëmm nga for fa benn maso boo ah, ñëwee nga di koy suuroo ngay dagg fa tuuti boo ko defee di nga tàggu bopp buy metti ndax mën na la sonal te boo ko fajul di nga dem ba ci biir mu jàpp sa nopp mel ni day riir seet ni di kontaan di nga am ndam neen di nga gudd mën na bari mais di nga am jàmm indisposé boo xam ne bu ñëw dalay sonal ak mbégte bopp bi ngelaw saytaane boo xam ne dana ko sànni del moytu di dox timis ak moytu di lekk ñam xew boo ko moytandiku mën na la sonal mën na la gàllankoor seet na lëndëm lëndëm xol bi bari na ndey aw fan yi da ngay gént gis lu ñuul da ngay gént di jaxasoo <coughs> seet neen góor dalay waxi sëy neen di nga léegi ci biir sëy bari at may jeex mm-hmm. yàggul de sëy bi xaw na yàgg di nga am doom bu góor nag ci biir sëy bi. ah allah doom bu góor dañ ko am ci biir sëy bi dégg nga. incha seet nee itam li nga comme maanaam mën naa mu doon teel a sëy itam ci sa wàllu am doom mais du def-def mais da nga am àndandoo tamit da bàyyi loolu xel. dégg nga. waaw am rab da nga am àndandoo maanaam. temps doom mën na la gaaw mais doom bu góor di ko am tëj nga sa bopp nag nee na bul faj hôpital du mbirum hôpital soo ñu hôpital duñu gis dara nee nga faj ko ci mbirum nit ki ñoom dégg nga am ko defee incha allah doom bu góor ngeen njëkk a taal mais metti bu dara ëmb di gis régal yi dina la dal mais mu taxoon ni ki mooy borom bopp te bu ko jàmbar te bu ko ŋaañ fenn incha allah seet na borom bidéew ku nekk ak yow yëpp da nga koy mais rab bi nga àndal moo fiir yow sa bopp du la may dara da lay day tës sa wërsëg day tës sa ay affaire looy du sot ku la du la jox muy tës sa bopp ma chérie allo nga xam naa bi ñu ngi lay ñaan nga déplacé wu parce que fi nga nekk yaa ngi jafe yaa ngi jànkoonte ak jafe-jafe ci wàllu réseau waaw nee dina baax seet na di nga kontaan sa bopp dina yëkkati ko toojal ma ñetti neen si serwe yoon ëmb bi ñëw taxaw incha allah boo ci taxawee dégg ñetti neen incha allah dinaa ko def. boo ko tojee ndeyaaw nga xool say mbir nan lay doxee. incha di nga am jàmm mais dangay génn trop génn gis ko borom bopp nga. looloo la sonal ci Malick. Uh-huh. sa ay maam. dafa yoo fa doon après xam jël numéro bi ñu déggante incha allah rabi ndax yéen a ngi ko bàyyi. incha allah dañoo jël di 77 baax na ñu ngi fàttali ne. waaw baax na ku bëgg a jot numéro nga dem ci Média SN TV. képp ku képp ku bëgg tamit direct bi mën nga jàll ci euh, Média SN TV. ñu fàttali askan wi ne ñu ngi jàkkaarloo ak la grande voyante mu di Mariama si xanaa du ñu def lu dul euh, dugalaat keneen ku nekk ci ligne bi mbokk bi salaamaaleykum. maaleykum mu ñu ngi bu baax mbaa yaa ngi ci jàmm. yaa ngi jàkkaarloo ak euh, Mariama Sy la grande voyante du ñu def lu dul bàyyi la nga waxtaan ak moom. asalaamaaleykum wa rahmatulah. ma chérie dina def. maa fi sama soppe yaa ngi ci jàmm. naka tàngoor mbaa la soppe. waaw te taw na nag teewul dafa tàng. ndeysaan ndeysaan da sant wallaay da sant ndax daf ñu jox pexe te du ñu fay dara taal ñu climatiseur boo xam ne doo fay dara. <laughs> Euh, lay sant yàlla yal nañu yàlla defal jàmm te ñu ko ci barke Seydina Mohamed soppi soppi tur la. at yi ci ñaata soxna bu jëm. waaw. sa wàllu wërsëg dafa am bulaay li ngay am bariwul. te la mu dafa des. seet di kontaan def ne di nga ree sant yàlla génne ma ñetti peeru daal da doon jàng arrêté jàng di ko jël. nee na nga daal di jàng létt coiffure boo ko defee di ci am tur. incha allah boo ko defee incha allah doo ko réer bi defal ma benn booru ñàkk tàng ak soowu. jour alxames ni koy tàcc. boo ko tàjjee nga xool sa wàllu wërsëg ak sa wàllu toogaay. seet ne allo jël. Euh, dafa mel ni xuj euh, dafa daw xëy dafa am problème tuuti problème de connexion. Mhm. du ñu def. ndax euh, yaram bi daa tàng dugalal keneen ñu seet ko moom di wasaa macha allah. macha allah seet suñu yëf la. fàttali askan wi ne yéen a en direct ak soxna Mariama la grande voyante. du ñu def lu dul tàmbali waataat liggéey bi ñu dugal benn téléspectateur sëñ bi salaamaaleykum ñu lay nuyu di asalaamaaleykum soxna si. maa ngi lay ziar waaw naka nga def ma chérie. sant bu baax alhamdulilah. tur bi naka la. Coro. Saga. Coro ñaar. toll si ñaata aji toll si ñaata. waaw Coro. maa bu baax a baax. borom vingt et un ans yaakaar yi tas bari na seen sa yaakaar yi tas borom benn daggu ñaam bi ñaam bi ay dagg dagg ba muy six dagg nga takk ko ci mus nga jox ko jigéen de sa wet gi day fari metti yaa ngi jot xaalis sa bopp a ngi yëkkati ko danga bari ni ngay xel ñaar danga toogee ñaari xel góor danga nga sëy nee na yaa ngi essayé ndax dina baax bala du baax seet neen nga dugg ci baax na te sëyu mbokk lay taxawal nag ki taxaw dégg nga. Oh, waaw na waaw. waaw seet ne borom biddéew nga mais di kontaan di nga ree di nga am ndam sa xol dina ñaari góor ñooy taxaw fi jàmbur ak koo xam ne borom kii la borom jabar. borom waaw ak koo xam ne amul jabar ñaari sëy ñooy taxaw. neen na ki am jabar sa xel moom la gën a dal daal ci moom ndax responsable la te it loo nga xalaat mooy dëgg mais xel ñaar bari na lëndëm lëndëm xol bi bari na seet ne di nga kontaan def ne di nga bari nga ca tegoon ma benn boolu laa ko sànqal bool kepp fan yi da xawoon feebar. waaw boo ko toggee nga jël ndox raxasu bi nga boole ko waaw nga boole ko ndoxu géej. nga nga sangoo ko ndox raxasu bi. nga boole ko ndox géej nga sangoo ko boo ko defee dina baax boo ko defee jàmm boo ko defee incha allahu rabbi yàlla dina la defal jàmm dégg nga nee na ndam ci yow mbir mu yaatu ci yow nga kontaan moytu réer de xaalis boo xam ne da koy wëtt doo gis ci yow. waaw li may réer la fa ñëw bari mhm, sax lu li nga réer le xam nga li tax jigéen dina jigéen dalay neen dalay neen loo teg mu jël ko maanaam boo xam ne ku la jege lay doon bugguma la cité benn ndax day sàpp keroog dama daan seet di wax tur ndax ma bàyyi ko maanaam dana ci mosoon am problème. Ah? dama daan seet di wax tur ne diw moo lay gën a diw mooy nangam mais dama ko mosoon def ñu <laughs> indi ma ci convocation ndaxte dafa am boo xam dafa réeré woon ndeysaan ñu indil ma ko mu ànd ak sàcc ma ne ko diwee sa sàcc wax ko tur bi. Ah, kër gi. sàcc yéen a bokk benn néeg. <laughs> Dior. damay seetlu damay seetlu. bul waaw jënd ko sa wéef bala nga dénk ko ci borom bi ba sinon boo ko deful di nga fayee ko nag ñu ne ko coppet safal jeex tàkk. te du ci moom dara. te boo jàmbatee ñu naan kenn la ay problème yoo xam ne doo comprendre si yoon wutal ma ñaari naajo. waaw ñaari naajo ndaw naajo kooku bi am na naajo bu kooku ñaari nga ma ci nga fekk jigéen di toog di yalwaan nga jox ko ndax say mbir mën a dox nga mën a avancé looy doon doon xale am nga ñaanu waajur ñaanu waajur moo tax sa njàng soriwul ah. waaw mhm. mais seet na ne incha allahu rabbi doo ko rëccu mais teel a dugg ci sëy bi nag mooy xaw a tëj sa sa ñaari góor na dañ lay topp ñoo xam ne booy liggéey da nga leen di romb booy wax da nga leen di romb ñaari góor kenn ki day jaay kenn ki nag ca mbedd ba nga koy romb mu ne ci toog di jàkkaarloo yow na lay gis rek bàyyi koy wax. waaw na na lay gis rek di bégee daf la bëgg ba ku la gisee dafa am dafa xam heure bi nga fay jaar ak heure bi nga fay romb moo tax heure nga di la wax nobel mais koy jàng seet nga bàyyi jàng góor boo mën na ci boppam ba ko wala lu mu la la ràpp tëj ko lu mu la wax def ko waaw doucement. waaw loolu doucement. te sëriñ nga def ndànk sinon du baax. seet na yaa ngi bari li ngay xel ñaar di nga kontaan di nga am ndam sa xol dina seet sa naqar dina la wan ginnaaw ci kaw xaalis dina dugg sa loxo mais du toog sëy bi dañ la yóbbu léegi war war nga bëgg nga bañ yëpp may yàpp tay <laughs> coro loolu xaalis bi ma ne dinañ la takk léegi de waa de bu sañoon bare ndox mi di dal ñu takk la yow ni yaa ne na xaar ah. te mën nga jëlaat beneen beneen élan ah, ah, mën nga ko jël xam nga nit xam nga nga jël tuuti élan jamono dafa capable te dafa gëm gàllaaj te boo ci duggee te ci neen li ñu ci génnee neen nekk di du forox. waaw jabar parce que fan yii moo tax moom bu ñuy mooy loolu. Mhm, jabar ji du bàyyi bandi du bàyyi rey awa moom léegi toogu yow kay li ñu tëgg sa combat léegi. <laughs> pourtant jii. Oh, ñu ngi lay ñaan nga jël numéro nga jo jokkoo ak moom appel via appel téléphonique ndax yi saa yi soxna Mariama dafay occupé lool ak message yi appel yi. bu fekkee tamit da nga soxla tamit ci wàllu boo soxlawee aussi ci wàllu ñaan tamit mu nga jokkoo ak moom incha allah mu defal la ci ay ñaan tamit. numéro bi moo di 77 060 43 10 wala ci 78. 243 48 44. d'accord naa ko woo am. d'accord Thioro boo paree nga woo def ma signe ci whatsapp bi dégg nga incha allah. baax na dugaloo keneen ñu ngi dugal. incha ah, allah incha allah. ki nga xamante ne moo di Khoudia. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Khoudia ñu ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar. waaye am suñu bàyyi la nga waxtaan ak moom. Khoudia salaam. sama soppe na nga def ku jël. yaa ci jàmm daa mel léegi duggoon nga de sa réseau bi neexu ah. non euh, live bi ah ok d' accord donc waaw wax nga dëgg live bi du 23 ans laa ci toll ah, sama soppe man lay nuyu di lay màggal bu baax a baax. naka coono sama kan sëñ Babacar mu ngi sama ginnaaw Sidi Fagué ma ca Jawaar. borom borom bu ne kaar bi xam ne du ko jàngal du ko wengal <laughs> soppee déggee caasalem macha allah xuja euh, xuja euh, euh, trois vendredi nga di koy sarax xale yi de ajuma ji boo koy saraxee dangay jàng faral di dangay jàng nga arrêté damaa sa njàng ndax sa avenir ci la nekk ah. Mhm. boo ko yeggalee doo ko def ah mënoon nga nga jéem xool nga def formation bala leneen xam nga li tax. waaw bëgg a dem xëy sax doo mën a dem sa yaram bi day diis. dëgg la waaw booy dangay mel ni ku ñu des ci bi. ba daf lay jaaxal. nee na feebar bi nga feebar nag booy xool affaire àndandoo da cee bokkoon. dëgg la neen loolu nag ja bokk na ci lu yàq sa njàng ndax fiiraange boo xam ne ci wàllu njàng ne seet nañu xujja nee nga daawal ay picc li mu tolloo sax d'accord di nga uh, waaw sëy bi nag dafay taxawaat encore certain di nga dugg ci sëy dafa jël. waaw kay neen di duggaat te sëy bi ay borom jabar rek ñoom ñoo lay gis bëgg la mais seet neen da nga ragal. na da am doom. bu mu deñ. Ah? a am bu mu am bu mu jigéen am doom bu jigéen mais boo am benn wut ay ñaan sinon affaire saytaane dina ci rab. waaw seet na sa xel mi dalul nee ngay bégal xale xanaa dam xale boo yor bala xale bu lay jege di ñëw ci yow xale boobu day mel yaa ko jur saa yooy seetlu day feeñ sa seet mais saa yooy seetlu day taxaw feeñ sa seet seet nee nga di koy bàyyi xel boo amee xaalis nga jënd ko lam nga xool sa wàllu wërsëg ni mu toll bu la gis da lay bëgg mais sa sa jëkkër ji nga tàggoon nag mu leen mu ngi jéem a ñëwaat te dina ñëwaat di nga ko mais Kreta. incha allah du nekk Sénégal bitim réew lay waaw même Kreta Ka du nekk fii mais day bëgg indi la ci yow tam. incha allah waaw sa sëy bu njëkk nag yenn saa yi dañ ci am traumatisme da lay jaaxal te jigéen a ko tas ku góor bi du la bàyyi dina toppal mais seet nee na doo sawar nee na borom biddéew nga dina sedd aayooyu dina faju mais lii moo la xaw sama benn bëtu cat làmmiñ nee na da nga nekk borom bët. da nga nekk nitu bët. foo tourné diw diw soogul siiw loolu te demoo dikkoo pourtant sa dem bariwul. da ngay xëy bëgg a génn sax mais lay mel ku ñu gëstal ku ñu téye ci kër gi. mais ba yenn saa yi da lay nga bari cat mais di nga kontaan génne ma téere alxuraan kaamil yàlla defal la jàmm taxaw sa ay mbir. baax na ñu ngi lay ñaan nga jël euh, numéro bi mu di 77. 060 43 10 numéro. soxna euh, mariyaama mu di 060 43 10 du ñu def euh, lu dul dugal kii di Salam Vision salaamaaleykum allo salaamaaleykum ah dafa mel ni euh, salaam dafa jànkonteel tuuti problème ci wàllu connexion bi. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw soxna Kine ñu ngi lay nuyu di ñu bàyyi la nga nuyoo soxna Mariama. soxna maa ngi lay bu baax. a baax. maa ngi sant na baal di war a amiin amiin amiin alhamdulilah ñu lay kontaan bu baax. ndeysaan maa a kontaan. nee naa dañuy bëgg ambiance jigéen ñi zéro stress. bu ma toogee jigéen ñi rek laay ñaan yàlla ñu dugg. waaw dëgg la ndeysaan ndeysaan ndeysaan sant maa gën a kontaan fu jëm ndax jigéen ñi moom dañoo war a xàppi war di ree war di bëggee ndax dafa am solo. dafa am solo jigéen ñi nekk ci waañ bi di togg nekk ci xale yi nekk di fóot mi nekk ci problème mu àddina yi day metti day metti mhm. waaw ñoom na yàlla sàmm ngi lay nuyu di la delloo ziar ñu bàyyi la ak soxna Mariama si nga waxtaan ak moom asalaamaaleykum sëñ Saliou sang bi maa ngi naa ko sang bi Sadio maa ngi lay ziar na yàlla nangu ziar naka coono yee. alhamdulilah alhamdulilah Sadio aji toll ci ñaata. vingt huit ans. vingt huit ans sëñ Sadio Mbacke katagal eh. bu baax a baax doomu jàmbur sëñ Sadio euh, seet nga nga taaloo. aussi trois bougies rouges bi nga taal ko benn bés dégg mais jour joli la seet wax. bougie bougie rouge. bougie. sondel sondel. bougie sondel. Ah, ah, waaw wut ci ñett nga ñaan si yàlla sa soxla nga ñaan yàlla leeral sa ay mbir ndax gis naa ci tukki mais dëkk ndox la ma seet wax du sama yow waxi seet la seet ne la di ree def na di nga kontaan cat gi mais di jéggi frontière incha allah rabbi dégg nga. waaw nga jéggi frontière di nga beneen dëkk sax. ah incha allah mais sa wërsëg. waaw sa wërsëg maanaam foofu la nekk mais di nga gën a sori loo xamante dëkk bu gën a sori boo xam ne di nga fa dem mais bu ñu taxawal ndam sant yàlla sëñ Saliou xaalis dañ koy jot mais du toog sa loxo yaa ngi liggéey mais li ngay liggéey yenn saa yi sa bopp da ci xaw a tëju li ngay liggéey sant la boo ci sa bopp li ngay liggéey. suuf kànja. bu ko toggee bisu altine waaw sëñ Saliou nga xool say mbir ak sa wàllu tolluwaay buñ ko génnee di nga am jàmm di nga am ndam neen sa neen fan sa bopp bi day faral di métti di diis guddi say nelaw day xaw a néew boo nekk sa tur siiw diw diw diw diw Saliou xanaa da bëgg football wala da nga yëngu ci wàllu sport. Hmm. sa wërsëg mu ngi ci dawul benn bal balu koo nu mu tudd balu koo. waaw mooy balu football yi. waaw moom ngay wut. moom ngay wut nga ñaan si yàlla sa soxla nga jox ko benn équipe buy football bu neexee yàlla yàlla dina dimbali say mbir baax say mbir avancé sa bopp di yëkkati ko ah. fan yi sa yaram day diis nee ngay gént gént bi xaw a jaxasoo côté mbagg bi day xaw a nagam mel na luy crampe dafa am jigéen yoo bëgganteel mais sa diggante yaa moom fan yi neexul. ah dëgg la kay. waaw nee na li war a ñàkkaane wàllu fiiraange benn neen un. waaw ah, neen un ah, ba wàllu fiiraange. da nga xaw a fiir. set seet na da nga xaw a fiir mais di kontaan neen di am ndam saa yu góorgóorlu di nga jënd kër. incha allah bala nga am 30 ans xaalis bi ñu la tiimee la tiimee sept point da ngay jël jël ñaari cent franc da cent franc nee na nga ñaan si yàlla si soxla yaa xam loo bëgg nga sànni ko ci biir géej nga dem suubu ci ndox bi génnaat nga xool. da damay gis xaalis day dugg sa loxo mais di toog li war a ñëw dëggantaan ñëw da nga xaw a tëj. dafa am ñaan yu nga joxoon nga commencé ko te yeggale woo ko. seet ay ñaan problème lay doon ci yow nee ne sëriñ bi defalu la loo xam ne da koy gis te boo commencé gis baax da koy dagg mënoo mënoo yeggale seet ne di nga kontaan di nga am ndam sa bopp dina yëkkati ko da nga duggoon ci sëy sëy bi xaw a jaxasoo sa kanam. waaw damaa divorcé. moo tax ma ne ndax danga duggoon sëy bi jaxasoo sa kanam seet neen ci biir mbirum tas ba góor gi da lay toppaat mais da ci wàllu gàllaaj. incha uh-huh. allah. jógalaat ci wàllu gàllaaj te duñ ko gisaat mais ay pexeem du sotti beneen góoram lay toppaat mais dafa am jabar mais waxagul waxi sëy mu xaw la ndëm sa kanam seet neen incha dina la waxi sëy mais dafay génne douze potu gulóor yaa ngay wër yaa bëgg lënd yu ndaw yi. mu ma doxee dafa des yenn béy liggéey ngay def dañ lay gàllaajal di koy dugal def xam-xam bu ñuul xam nga xam-xam bu ñuul. waaw moom lañ lay def moo tax say mbir day xaw a yenn saa yi dangay toog sa bopp bi mel na lu jaxasoo yenn saa yi doo bëgg dara mel sa xol dafa bëgg a wax te ko wax sooda. sa fii day jam ma tëdd rek. sa fii day jam del moytu xalaat. nangu benn góor rey la téeméeri góor a rey suul bu ko nangul kenn dundal sa dund di duggaat ci say macha allah waaw incha allah. neen ta di ci am ndam sa xol. kontaan naa ndeysaan maa gën a kontaan Soda. Euh, voyage plus confidence la ñu soxna lay ñaan nga jël numéro bi mu di 77 77. 060 43 10. génneel ma jën génneel ma juróom-ña juróom-ñaari jën nga saraxe ko ndax gis naa ci yow luy ñëw ci wàllu wërsëg mais dafa xaw at taxaw tuuti mu jaaxal la mu tëj sa bopp. sa bopp fan yii dafa jaxasoo seet neen incha allah di nga am wërsëg mais danga may tojal ñetti neen ci ñetti serebe yoon yu bokkul benn guddi ngay jënd ñetti neen yi comme tay ci guddi nga toj ko ci serebe yoon demaat toj ko si nga tegle ko yoon nga wàññeeku te bul awaat mbedd ma nga awoon nga xool fii ak suba ak ginnaaw suba fii ak ñetti fan li ngeen soxna Mariama gis naa waa ji dajji ca paquet bu bees tàkk te bu ñëwee farata lay doon maa la ko wax <laughs> léegi nga yëy buróo ma ci sa tàngal yow daal péndil ndax gis naa enjoy bu neex ci yow ndeysaan man daal damaa ndax lan moo tax dañ la dëj dañ dafa fase ci gàllaaj ndax dafa fase mu ànd ak coow ànd ak ay wax nag mu xaw a ñëw mais dina la yónnee pour takk si waat waaye bul nangu ndax boo ci dundaatee lu raw liñ ci doon dund moom nga ci dund ci kàttanu suñu borom ay mbokkam bëgguñu sëy à chaque ñu ci dox lu ñaaw di ci wax. soxna si ñu ngi lay nuyu di la nag dafa mel ni dañu respecté wul parité bi de ndax jigéen ñi daanaka ñoo ëpp ci ñi dugg. maa ngi kon baax na kon baax na yaa ngi jàkkaarloog soxna Mariama ñu lay ñaan nga fàttali ñu tudd ak sant bi ak at yi dañoo ñun dañoo bari tàkkaal la. ndeysaan Fatou Ba. maa ngi lay ziar soxna Mariama la fois passée yaa ngi waxante ak man mais li may wax dégguma ko te dama amoon ay gan yu fi ñëwoon xale yi doo dara si li ñuy ma moo ngi a jàpp à sept bi à la ma laajee may waxaat sax. <laughs> xam nga dañ ñaan xam nga dañ ñaan jinne jinne xam nga dañ ñaan jinne jinne xamul li ci li passé li ci ginnaaw ci kanamam la xam. man su ma la seetalee su ma waatee bu laaj bi jeexee nga ne ma luy saako bi du mën a tontu ndax xaw yow wallaahi barki yonent bi su may wax moom mooy wax. mais li ko li ko topp moom mooy wax. mais su ma paree maa ngi ci yeneen level. Euh, maa ngi lay bu baax a baax. dëgg la dëgg la baax. tur bi tur bi naka la. Fatou Ba 34 ans. waaw soxna Fatou Ba. Mm-hmm. seet nee na danga nekk ci biir néegu sëy. Mm-hmm. sëy bi day tas. mais maa ngi foofu ah, na ko yàlla yërëm mm-hmm. yal na ko yàlla xam mais coow. coowal miraas wala coowal génn sarax jaasi foo ñu ko taseel tamit sàkk na nga jox ko nga xool dégg nga ndax gis naa ci yow coow loo xamante ne ak wax joo xamante ne waxu biir néeg la mais dañuy génnee wax ji ba ku ci war a jot jot ci Anisa sa doom am ci sëy am na am naa ci ñaar. waaw ci biir ci biir dëkk bi nga dëkk sa kër goro du sa arrangement ndax boto du dem boto posté kenn du dem kenn du ñëw neen dina jaaxal. neen dina jaxase. mais ku bëgg a ñëw yow yaay am kersa sax ku la gis da lay bëgg mais doog boobu nga fa toog da lay gën a dëng boo mënee génn sa yëf bopp ndax yaa ngi xaar miraas boo xamante ne dina dem ba tribunal te wax ji fañ koy yóbbu eggul foofu set bi ay wax yoo xam ne wax yu nëbbu la. seet na nga wutal ma 11 mètres percal nga saraxe ko ci morgue pour yàlla defal la jàmm yàlla yëkkati sax ay mbir seet nga di nga kontaan faatu di nga ree di am ndam di nga gudd fan sa xol dina seet mais naqar gi dalay wan gi bay tëj sa bopp. ñenn mhm. saa yi sa bi du toog na ngay toogee ñaari xel. Mhm. xel mi di lay xalaat loolu yi xel mi di lay xalaat loolu baax xel mais da nga am àndandoo. xam nga loolu. waaw xam naa loolu. waaw sa bagage seen fa diis na boo tëddee lu la nar a arrivé da koy gis ba bu ma doonoon tey ci seen tur fa sa tur day mel ni yàlla dala koy wan seet ne yàlla moom moo la defal loolu nee day tëj sa bopp dalay jaaxal seet ne kuy gudd fan ngay doon faatu ba neen di nga ree sa doom bu jigéen mu ndaw bi takkal ko lam xam nga def ma ne nga takkal ko lam dafa nuroog papa ji te da koy jànnee day wax ci papa ji lu baree bari donte ne miinu ko xam lu bari mais da ciy seet nee na nga takkal ko lam nee na boo ko takkalul ba xari nga cat bi nga ree kuy kontaan ngay doon def mbég mu yàq def sant yàlla sa naqar dina la woon ginnaaw aajo dina faju mais lëndëm lëndëm bari na lool ci yow na borom bi la nee na ndam mbég mu yaatu mburu ak chocolat génne ci 3 kilo nga saraxe ko kër gi nga nekk neexul noonu ci yow danga xaw a xat yaa ngi fa toog ni ne sa xel ngay xalaat ngay jaxasoo naqar gu lay woon ginnaaw génne ma 63 ndox mu sedd buy ngay seddal nga génne 63. 63 nga saraxe ko nee na boo ko génne incha allah dina baax di nga amaat jëkkër mais sëy ku dina moom boo moytuwul troisième femme a nekk góor ñi la bëgg bari na. bëgg ci daal. boo ci taxawoon day sotti ndax sa wërsëg muy ci jaww ji nee na waaye mbirum commerce nga bëgg a def wàllu dem ak si jënd ak jaay. seet nee na boo ko defoon première fois bi dina baax trop ci yow te di nga toog ba sant yàlla ca wàllu ndam naqar gu lay wan ginnaaw lu ñu nëbbu muy feeñ ci kaw xaalis booy jot. jëlal ma kirdan nga xoojal ma ko ci siwo ci kaas nga koy xooj nga bàyyi ko mu fanaan seen ba bët set boo xëyee nga sotti ko ci ndox nga sangoo ko ba pare nga tas kirdan ci nga xool sa li lëndam dox te du ko dox en limayaabu te sottiwul yàlla dina ko leeral incha allah ba nga am ci lu suuf sa ndox mais da nga tax da nga découragé da nga jaxasoo boole sa femme bi fii day métti jàpp sa tànk bi moo jot. bu ngelaw saytaane bi bi ngay tënj la. waaw dafa a jàpp. la ngelaw bëggee depuis boobu day métti day sonal. seet nee na nee sa benn nga saraxe sa benn yére nga nga saraxe ko dina baax te dina doon ndam te soxal dina ca seetal bopp bi dina yëkkati ko mais da bari di ngay xel ñaar stress yomb la. ci kaw aajo yi faju ci kaw nga bari cat xol bi di seet lëndëm lëndëmu xol bi bari seet ne da nga gaaw a découragé mais di xaru benn melo benn xar ngay yeew xaru benn melo bi nga dem nag sa kër bopp mais booy dem dafay fay tuur di nga rey xar mi tuur fa di ret allah ma doon sarax ci yow doon jàmm bu neexee yàlla bopp lu dem. incha leer na ma la leerul. ñu ngi lay ñaan nga jël numéro bi mu di 77 060 43 10 nga gën a mën a jokkoo moom mu gën la seetal. ah ngeen gën a mën a déggante 77 77 0 60 43 10 kooku mooy numéro soxna Mariama duñu def lu dul euh, dugal kii di Ousmane Ousmane salaamaaleykum waaleykum salaam Ousmane ñu ngi lay nuyu di la ziar ñu ngi ciy jégalu bu baax a baax nag sànq ba léegi jigéen ñi rek doon dugg abab ah, da jigéen dañoo war a ah, ndax jigéen ay seet nag. waaw ah, waaw ci la bokk de yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama si ñu bàyyi la nga wax. asalaamaaleykum Ousmane. waaw. maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax. Babacar daa mel day far. waaw su daa nekk ci place mbooloo di liggéey. waaw. même sa wërsëg mu ngi ci place bi da nga jàpp yow xanaa da nga fee nekkul. non fekk naa kay maa ngi Espagne. waa lool laa ma ne nekkoo fi da nga tukki maanaam neen ci biir tukki boobu baax na ci yow Ousmane nga saraxu imam imam incha allah baax kontaan ndam la dég la seet ne di dund ba sant yàlla mais sa bopp day faral di tëju ngay jaxasoo seet ne fay sa xel mi dalul li nga bëgg am nga amagul fi nga bëgg a yegg nga yegg bu fa dem mu ànd ak cat. ànd naa cat waaw ànd naa cat ànd naa ak ay gàllaaj yoo xam dañ ko ci def pour doo am dara pour doo tekk mais ki koy def day këpp ci kawam seet nee na nga fexe maa wutal kilo dugub kilo mboq kilo gerte kilo ñebe sa dem bi daa bett ñëpp yow sa bopp daf la bett Ousmane. waaw ma ne bi ngay dem dafa daf la bett. waaw daf la bett mais ànd naa nga ànd ak yàlla dégg nga te yoon bi neex na. te sa wërsëg mu ngi foofu noonu incha allah mais day faral di saraxe fruit bi dafa am jigéen bi ñu la bëgg a may nag ñu ngi koy waxtaanee waaye seet nañ sa xel du ci toog. waaw. nee na dafa am jigéen yoo xam dañ la koy bëgg a may mais sa xel du ci toog daal du dal. Uh-huh. seddee na di nga génne gerte gerte xott. wutal ma juróom-ñetti doom nga toj ko mais da nga koy sànni ci tali pour sa wàllu wërsëg bañ a tas uh-huh. pour sa wàllu wërsëg yàlla boole ko mu doon benn. pour nga mën a lekk sa wërsëg yow wërsëg bi daal di yegg mu doon ndam doon sant yàlla seet na di nga bëgg di nga topp sant yàlla mais xel mu da bi nga demee sa xol neexul da nga mel lu jaxasoo ki nga yàqute woon dem ak ba nga demee dafa fekk ça fait deux. li nga yàqante woon ak li nga fa doon foog ak ba nga fa du benn. ba day tëj sa bopp da lay mais di nga gudd fan ci kaw soo piir boo war a saraxe nee na mu taxawal ndam sant yàlla mbir mu yàqu seet na di nga toog ci donkaasi bi. toogaay teraan yenn saa yi nàkk day mel ne luy jam seet ne tubaab nag dina la gis rek topp la waaye bu dugg ci tubaab tubaab moom bàyyi rek ci duggee yoon loolu tax man nga waaw cat ci suuf si dem tibb ci suuf suuf si sangoo. loolu moo nekkoon sa gàllaaj. waaw suuf suufu fi nga jóge Sénégal ak suufu Espagne ñaari suuf yooyu nga war a boole nga sangoo loolu moo nekkoon sa gàllaaj bi nga xam ne pour yàlla musal ci ndox musal ci gàllankoor. bu ah, ma ko bu ma bu ma ko kay bien sûr mën na nekk kay. boo na nekk de boo boolee. mois bii di ñëw day delluwaat quoi moom bu ñëwee mën na ma ko indaale bu fekkee mën na nekk. waaw suuf fi nga fi nga fi fi nga bàyyi bi ngay dem foofu lañ ñëw doon suuf bi nga boole ko suufu Espagne nee waroon na ànd suufu armeel sax nga boole ñetti nga def ko nga xool Ousmane dégg nga. boo ko defee sa alal dina dajoo te dina am wërsëg macha allah amal jàmm dundal wéral. Ousmane ñu ngi ñaan nga jël numéro bi mu di 77 060 43 10 77 060. 43 10 nga jokkoo ak moom incha allah mu gën la jox ay leeral. ñi ñi ñuy suivre ne bu fekkee da ngeen da ngeen a soxla ay sangat lu mel ni ci wàllu cat ak lu mel ni ci wàllu bayre soxna Mariama si la grande voyante mun na leen ci indil ay saafara du ñu def euh, lu dul euh, dugalaat ñeneen. allo waaw gis naa ne nag ngay ñaxtu sànq ba léegi ci ligne bi. mi yaa ngi jàkkaarloo ak moom ñu bàyyi la waxtaan ak moom. ah téléxaseen doo ko mën a bàyyi noonu day yomb sëñ Babacar di nga ci ci ci ci ci ci jàkkaarloo soxna Mariama du ko rejeté maa ngi gis nga boo dogul woon dog aaw ah, dogu bi baax na de ndeysaan. ndeysaan ndeysaan soxna Fatou. John Waly may sax. seet nee na tegtal bi njëkk a tey sa wàllu seet mooy njàq loo xam ne dafa war a teg nga di koy sangoo ndax danga bari cat. nee na bi war a ñëw dëggantaan ñëw dangay liggéey danga mës liggéey ci nit ku weex der bu weex. Ah? danga mës a liggéeyal der bu weex nit ku xees. der bu weex a liggéeyal der bu weex nit ku xees. moo xam naa la moo xam tubaab. li nga a ci wàllu liggéeykaay dégg nga. waaw seet na fan yi sa bopp dafa yow da gis moo tax loolu laa gis si nit ku weex di nga mës a jëflante moom di nga mës a di seet soxna si. Ah, xam nga lan moo tax ma ne di nga mës a toog di seet ci ay bant ngay xoolee xam nga bant ci bant moom lañ lay jox. bu njëkk ah. bu njëkk da daan gént di gis seetkat mbala faj da nga daan gént di gis ay xàmba ak ay tuur. waaw nee ba pare loo gént da koy gis da nga am vision bu sori yenn saa sa dimension gis yenn saa sa dimension gis-gis da lay jaar. rab yi ñoom ñoo lay def noonu te boo jëlul faj nag dina la mës yàq maanaam da lay def lool te mën na la gàllankoor lii may ah? ma jëlulee la. bu ñu la joxee faj jëlul la kër téppatiku. loolu la ñuy parce que am mhm. nga mës a toog faj de te booy faj xam nga mooy gàllaaj bi da ngay wut boo xam ne xamoo borom nga gas nga suul buntu fi ngay fajee dàll. caax mais bu ko suul ba mu yegg ndax damay gis ne di nga a toog bay faj lii may def di ko def te man maa ko wax te di nga ma woo bu yàlla defee jàmm may ñu gudd fan ak wér barki sëriñ Babacar dina toog di faj ndax yow xam nga li nekk ci yow xam nga li nekk ci yow ah, te xam nga li ngay gis te xam nga sa dimension soxna Fatou Dior yenn saa yi dañ ciy foog di wax nit muy caaxaan te di ah <laughs> li gën a garaaw sax dangay nekk ak nit wax ko ne ko nangam nangam bii wallaahi bu xëyee da ci teg bëtam. nees dañ lay dee di dee di lay dee ba yow dangay jaaxle moo tax bopp bi day faral di métti jàpp ci benn côté bët bi yow mën na la jaaxal mën na tëj sa bopp mais dimension bi ngay toll mooy kawe sa rawaan nag muy ci biir ndox looloo ci gën a doy waar bis boo toogee di faj lii ngay seetee ndox ma maa ko tey nga dee. nga itam ñu del faral di sarxe sow xaalis day ñëw mais liy bloqué bari da nga bokk ci famille boo xamante ne doo dem dama dem. te fan yii dafa bi day na Fatou. Um soxna waaw seet neer itam mbirum yi daf koy jànkonteel trop. soxna Fatou da ngay sëy bu lëndëm trop. sëy bi dafa lëndëm baaxul yaa ngi waa ji seen rawaan àndul waa ji rawaanam safara la yow sa bos ndox moo tax mënoo leen def même bu la toogoon tey di insister si sëy bi di ko mës a tey ji moo tax mu bàyyi moo gën mu insister woon bu dem li ànd ak yow lu fa di gis te li ngay gis moom du ko gis te boo nekkee nit ku seetul mbala ku sell day am problème waaw ndax da jékki-jékki bañ ko mbala nga bëgg ko rey te doo xam la soo soxna si nga baal ma bu samay wax waxi Mhm. seet na incha allahu rabbi dina baax te di nga am ndam neen lu mën maanaam buur boo sëyoon tey day xëy ñee la nga naan kii la la may ñeew man la moo tax diw ma ñetti gu la ndax jigéen bu mën góor nga te say waajur dañ la ñaanal looloo la topp ba nit tey bu jógoon doon la jéem a faagaal nga day këpp ci borom soxna faat loo am sa yaay ak sa papa moo tax danga jaboot nag mais góor nga ëpp li ngay jaboot te sa jur doom jeexul dégg ñu ngi lay ñaan nga jël numéro moo di 77 060 43 10 nga gën a mën a jël waaw dangay jël numéro bi mu di 060 43 10. waaw léegi tegtal ko Babacar ndax mi ngi dëkk pharmacie. Euh, mi ngi dëkkee euh, toujours ci pharmacie Front bi ci Castor. boo yegsee ba ci pharmacie Front de Terre ci Castor incha allah boo wootee dinañ la jël si. ñuy fàttali numéro bi ne. incha allah léegi boo ñëwee ba ci koñu. boo ñëwee boo ñëwee ci pharmacie communautaire bi incha allah nga woote ci numéro 77 060 43 incha allah bu leen la jël ci kàttanu yàlla. jégaluwaat bu baax a baax a baax ci yéegu ndax gis na yàgg nga fi lool. yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama ñu bàyyi la nga waxtaan moom. asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Xaadim. mbirum nga dugg ci. boo ko commencé. nee na nga dugg si mbirum nee boo ko defee di nga nee dafa bari ci yow weneen ci xol bi bari na seet ne xale nga mais dangay taxaw bu fa yàgg nee na dangay toppatoo ay kayit pour a yoon dem bitim réew maam ndax dama am booy xaar wala booy toppatoo waaw këyit bi di ko jot mais këyit bi dafa am sarax mooy wut paaw xam nga paaw xam nga paawu paawu loolu di ngan tamit mel ni lii lay nuru baax nga ceeb. paawu paawu tamit ngan tamit tàll dëkk bi. paawu xam nga paawu. bu ndaw weex. bu ndaw bu weex moom ngay génnee nga def ko sànq sa wàllu wërsëg. neen boo ko defee neen këyit bi ci jot te neen di nga am wërsëg bu yaatu ci dem ci beneen dëkk te lépp taw féex la lépp jàmm la. seet ne di am ndam di nga kontaan mais sa naqar bi dina doon ginnaaw bopp bi day faral tëju mais da bari déception pour sekkal mu war la moo tax nga dem ba doo ko ñemee sa problème vaut mieux nga jël sa problème nga réserver ko sa bopp mu ëpp ci yow ci yow it ndam nee ku la xam bu bëgg la toogee lu ndaw dañ ci yàq sa bopp man ñu lay tuumaan ta nga may tuuma jigéen tu jiñ tuuma jigéen dee ba jigéen dina la ji tuuma boo xamante ne ba wàllu yoon dina ci am del bàyyi xel jigéen del te ngay moytu boo ko moytandiku di nga am gàllankoor. yoo xam ne dina mën a jóge ci jigéen. seet ci kaw xaalis booy jot naqar bu lay wanaaw aajo na di nga ko di nga xeex seen xaalis kenn du tey nga am sa famille kenn du la ci ëppale donte ne xale nga sa wërsëg ñëwagul mais wàllu commerce nag ci ngay amee alal seen xaalis nee na boo defee commerce di am xaalis mais da nga mbirum yàlla jur yi dee ko faral di def seet na ne kuy teel a tabax kër na ngay doon mais dee nëbbatu dee nëbbatu loo mën a nëbbatu maanaam bi ngay nëbb sa di defar sa ay wax di doo ci ay jafe-jafe ba dina sa bopp di lañ lay ñaan nga jël numéro mu di 77 060 43 10 xam naa ne li ngeen war a waxtaan yaatu na loolu loolu ci bi ñu ngi lay ñaan nga jël numéro bi mu di 060 77 77 060 43 10 wala nga woo ko ci 78 243 48 44 ñu ngi lay gërëm di la sant salaamaaleykum soxna si. maaleykum ñu ngi ñu ngi lay nuyu di la di jéggaluwaat ndax gis nañ ne yàgg ngeen loolu ci ligne bi di wax ñeneen ñi euh, ne ñu jéggal ñu rek ndax mënuñoo dugalandoo ñëpp incha allah tey soxna Mariama dina def euh, live bi waaw ñu ngi leen di ñaan ñu ngi leen di ñaan ñi ngeen taaxirlu rek fii ba fajar incha allah ñu ngi fi ak yéen. yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama ñu ngi lay ñaan nga fàttali ñu tur sant bi naka la ak at yi. Fatou Faye 40 ans. asalaamaaleykum wa Waagaan. nee nañ dugg waagaan xaalisu waagaan. man bëggee jël ko suba Faye bi yaay. ñëwal ñëw si wala. seet na boo ko génnee dina baax te di kontaan dégg nga Fatou. am ndam mais danga war a yow xat. danga war a yow xat. mooy sa mooy sa te mooy sa xorte ndax sa wàllu wërsëg alal bu dul dox ci la ko. soxna Fatou danga nekk ci wàllu jënd ak jaay. dafa yàqu sarax nga daal di continuer jënd ak jaay ba xam ndax nan. sa njaay bu ko def defal ah. tuut ta teew njëgu bàmbee mais bu nekk nga am waa am bénéfice bu ndaw mm. moo gën bu bari te doo ci doo dangay mm. perte saa yoo defee bénéfice di wut lu bari rek day yàqu mais del def tuut teew dégg njëgu bàmbee nga koy def paasu bàmbee nee boo ko defee incha allah dina baax xet mm. ne di nga gudd fan sa nga tiital la ñeen fan yi géntu jaxasoo génne ma ñetti takku bale saytaan daray topp non 4 8 saytaan yi li tax mu lay topp gis nga boo jëloon sa baaraam yi nga tolloo ko day yëppante du tolloo neen saytaan bi jigéen daf la yàgg a topp neen ci kaw xew moo xam ne da ko amoon dëkk ba bana ndaje boo xam ne ndajeb jigéen nee na nga jógee ci neen saytaan yi dem ba boo toogee côté bi sa fit day tëb tëbi da lay jaaxal seet di nga am ndam di nga ree nee na nga kontaan yaa ngi jot xaalis sa naqar di lay wan ginnaaw faj da nga jaxasoo sa diggante góor jaaxal na la de sëy bi li tax muy yàqu mooy dafay topp beneen jigéen te jigéen yooyu da leen boo jógul si sëy bi day tas danga danga dem ba danga découragé si sëy bi yow sa bopp waaw danga dem ba dégg sëy bi nga gisatul sa bopp defalu la dara amalu la njariñ bëgg di raasaabu fee bay ta waaj a takk jabar sa bu takkee tey nga koy bàyyi neen day tëj sa bopp daf lay jaaxal daal def ma ko de xoolal def vocal. nga ne man la faat fay sa guur dégg damay gis dangay sonn ci sëy bi mais amul amul ci yow amoo ci benn importance. tegatu la fenn ay mboqam foo ne lu mu am jox la lu mu xam wax la te may ànd moom dara du dara. incha allah euh, dañ lay ñaan nga jël numéro bi mu di 77 060 43 10 77 060 43 10 nga mën a jokkoo ñi ngi jël ki nga xamante ne mooy Mamy Diouf mami salaamaaleykum mami di jégalu baax baax ci xaar bi waa lu jot yomb yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama. asalaamaaleykum wa rahmatulah Adja. naka nga def yaa ngi ci jàmm. maa ngi yàlla bu baax baax. maa ngi ci ñaata. waaye mu ngi. <laughs> ndeysaan nee naa rek ndeysaan ambiance bi rek ñu ci dugal waaye ñu ñu xam ni ñu toll ndeysaan macha allah. sëñ bu baax bi sëñ bu baax bi. ndeysaan ndeysaan tur bi tur bi naka la. Mosaan. Mosaan Diouf. Mosaan ma nga doon suñu boobu duñ ko <laughs> ñaat yi toll si ñaata ndeysaan. waaw jëlal lépp Mosaan. loo wax baax na man dinaa nangu nga doon sama buur ba émission bi jeex ma daal di jëlaat sama buur man toog sama sees jàpp sama ñaam borom 37 ans. ne ndeysaan nee na am nga seet nee na borom alal ngay doon nee na am kay war na fekk tabax étage bu mag. nee na heure mais bul découragé seet nee xanaa sa famille dañoo yor ay bagaas waaw dëgg la biir bagage yooyu yenn saa yi da lay da lay sa famille. sa ay côté maam dañ naan la bu liggéey kenn mais ku la liggéey yàq na liggéeyam ndax day këpp ci kawam dégg nga fan loxo bi da doon métti. waaw da ah, bi. la. tànk bi nee na baaraamu sànqalañ bi loxo bi di nga muy métti mais mbirum saytaane da ciy rax mën nga ci seen. boo xam ne mën na jàmm seet ne incha baax di nga am ndam day tas day tas sa premier sëy day tas. neen te jigéen ay tax mu tas après waajur day wëlbati bu topp kaw waajur yoo may dara mais daf lay liggéey après liggéey bi liggéey bi muy def xam nga ku koo waxanteel mu doon ay kàddu yoo day ànd ak wor day xaw a jaxase sa ne ko defee moom du ci am jàmm mais na ko jéem pour jéem a gàllankoor sa ay mbir seet ne ba dina tëj sa bopp dina jaaxal mais naqar gu lay wan ginnaaw aajo yi faj seet ne di nga am ndam génne ma juróom-benni kaasu ataaya mu sànni nga sànq ko nee boo ko defee nga xool sa wàllu wërsëg ak sa wàllu toogaay da nga nekk ci place mais place bi nga nekk euh, day tëj sa bopp yi tamit saa nga découragé ah. soxna ma ne danga nekk danga nekk ci place. juróom nga génnee ko nga sarax ko mais jox ko jigéen. incha ko jox jigéen bi bari wax. seet nee am nga saraxu muuma tamit. benn ginaar bu weex ngay jël nga sarax ko moom sa wàllu wërsëg sa jëkkër ji da koy bloqué nga baal ma a sa wërsëg ba looy dugg nga gis li amee xaalis ak li nga daan yëkkatikoo day xaw a wàññeeku te góor boo waxal mu ànd ak war ba day tëj sa wax di nga duggaat ci say te di nga taaw loo góor ay seet war a góor ak jigéen ngay am góor ak jigéen nag sa famille dañuy fay seet da fay waaw dëgg la. Mm-hmm. xaalis du toog sa loxo de. dëgg la kay. mosaan fan yi na kay. fan yi da gént gént yu la jaaxal. nee nañu mbirum xaalis ma ne da ngay gént gént yu la jaaxal ci kaw xaalis buy dugg sa loxo mais du toog seet ne di nga am ndam di nga kontaan mais sa bopp bi faral di méttee benn côté di ko tas fan yi boo tëddee ci la doo a jóg sa jëkkër jëlee liggéey nga baal ma sama ay wax. nee seet ko wax nee liggéey bi mu lay def moom mooy pour doo ko sëyaat ndax dafa la fase te doyul ci yaw wax ju àndal leneen ci biir kàddu ñu taxaw nga nekk ko mun naa defal dara ba yow dara daan jaaxal sax allo. waaw. jaboot nga ci nag mais bariwul seet nee na dina duggaat ci sëy bi ñu ca gën a jaboot nee gi lay takk du bi koo nekk nit dimbali ko bàyyi mbiram dox mu war la ginnaaw maanaam oto bu paan nga puus ko te yow mi puus doo dugg nee say mbir noonu lay taxawee mosaan. seet na ni loolu geraw garab boo xam ne wàllu ngelaw sa bi day jékki-jékki sàdd te bu normalul nee ba yenn saa yi fan yi dangay mel kuy miir booy dox boo toogee sa tànk bi day crampe di nagam day jàpp sa xol waaw waaw seet na ne insha allah dina bàyyi danga jël sa yaram bu saf sa nga daal di naan coono coono ñëwee ni samay xat-xat ñëwee yàlla def teg ma tawat boo xam ne tawatu ngelaw yal ko yàlla teg ba simu yére bi ne ni may simu yére bi yal ko samay coono jeexee nga lem ko nga génne ko nga sarax bi sa wërsëg dinay biir xaalis dina dugg sa loxo ndam di ko am sa xol dina seet te di nga avancé rek dégg nga incha allahu rabbi ñu ngi lay ñaan soxna ma mi nga jël numéro bi mu di 77 060 43 10 incha allah nga woo kii di soxna Mariama la grande voix la gën a ci jox ay leeral jël pause sama ah, ah, def lu dul euh, dugal ki nga xamante ne moo di Mia ay ay Aydara soxna Mia ay salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. ah damaa fonk Aydara yi de moo tax damaa fonk Aydara moo tax ba ma la séenee rek dugal la. ñu ngi lay nuyu di la ah yaa ngi yaa ngi jàkkaarloog euh, seen soppe mu di Soxna Mariama allo asalaamaaleykum asalaamaaleykum ay dara Kalla ba ngay ziar naka tur bi nan la allo ma tur bi naka la Amina Aydara aji toll si ñaata. Aminata Aydara laa tudd. aji toll si ñaata. maa ngi am vingt neuf ans. waaw Amina Aydara borom vingt neuf ans génne ma 33 sa seen bopp ma saraka ko dégg nga. 33. sa seen bopp ndox. nga saraka ko may jox ay xale. yaa may dégg. allo. waaw 33 sa sembax moom ngay génnee nga saraxe ko ma jox ko ay xale dégg boo ko defee di nga kontaan di nga am rek lëndëm lëndëm xol yi bari na mais seet neen di nga kontaan di avancé sa bopp day faral di tëju neen sëy bi mu ngi taxaw sa kanam mais sa sa xel da ngay toogee ñaari xel ci biir sëy bi seet nañ sëy bi incha allah boo ci duggee dina baax mais moo ci cee dugg nga dem ba ci biir jigéen la jël sa sëy. dina ci indil ay problème ay jafe-jafe doonte ne du ci am ndam dégg nga allo. waaw sa bopp day faral di tëju nee na góor waxtaan ak yow mais nun lay wax doo ko gëm nga dem ci sëriñ lool mais bu la joxee gàllaaj it boo ñëwee doo ko utiliser da nga koy teg. waaw nee ba yenn saa yi lay jaaxal war nga dépassé fii bu yàgg seet nee na ndax. allo. nee na nee na sëy bi boo ci duggee doom bu jigéen boo xam ne dañ ko taawloo te jaamu la ndam ah, la. sëy bi laa wax sëy bi. man sëy bi ah, waaw sëy day taxaw fii dégg mais sëy bi dina ànd ak cat ndax dina ànd ak ah, alal ju bari yoo xam ne cat dina ci am ba yow sa bopp dina tëj sa bopp dina la jaaxal seet na ngay bool sa peeru mbéy neen sa bopp dina yëkkati ko mais danga bari li xel ñaar dégg nga ca wàllu wërsëg ba neen cat gi bari naqal bu lay wan ginnaaw donte ne lëndëm lëndëm bari na seet ne di nga bari li ngay seet ne di nga bëgg di nga toog ba sant yàlla tëggal ma la mu xaalis nga teg ko sa loxo ku la gis da lay bëgg mais boo demee ba ci biir rek rab yi da lay dëpp ba boo jëflante ñun après yi ba boo si sëriñ ah nee boo demoon ci sëriñ maanaam déggu ma rab ngay faj rab ku la mën di wax nga la fajal rab te bu la tuurloo direct day rakkaaju ndax day bi day def jàpp ci ah, feebar bi mu jàmbat day miir bëri day mel ne fulu sa yaay da génnee kilo yàpp mu saraxe bu nitu bët la ay saytaane ko topp ba boppam day tëju mu mel ne luy découragé jaaxal jotoon na nekk ci sëy. waaw duggoon ci sëy nga tas. naa nekk si waa duggoon naa ci baax na di duggaat ci sëy. mais dangay togg laax laaloo xam nga laax laaloo. xam nga ko. moom ngay togg benn. waaw nga woo ay xale nga daal di ci togg. nee na duggaat ci sëy da doomu jigéen nga nga njëkkee too taxaw da nga a dugg ci bu tas maanaam sëy bu tasee day duggaat beneen sëy mais ki dina doon kilifa du doon coono. baagaloo du la yar bu la yoree dalay fase sa deret a boo tëddee da nga jéem a sa bi tamit rab moo lay gàllankoor te day gis sa bopp. jàpp sa wet. nee sëriñ bi lay sangat. nee na juróom-ñaari sangat la lay defal ci lekket nga sangoo ko benn yoon rab bi wan la ginnaaw carrément mais bu mu la tuurloo deret te buñ lu ñu ngi lay ñaan jël numéro mu di 77 060 43 10 xam naa ne li ngeen war waxtaan bëri na lool te bëgg naa incha allah mu jàppale la ci bu baax a baax jëlal numéro mu di 060 43 10 incha allah ngeen déggante. soxna soxna Mariama bi dafa mel ni mu ngi gën di euh, bëri ay invité xanaa du ñu def. Euh, incha allah xam naa ne na fi lool. waa Salam Vision yi ñu ngi dem saa saa nga nuyu ma ko. waaw waa Salam Vision duggoon nañu léegi ci euh, laaj. incha allah ñu dellu si waxtaan ñu duggoon suñu saa ñu. gis nañ ne gis nañ ne depuis huit heures ba léegi yaa ngi ci ligne bi waaye il faut ñu bi. Ah, waaw baax na jërëjëf yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama ñu bàyyi la nga waxtaan ak ñoom. wa rahmatulah.

benn bi nga nekkal mbala benn bi ngay faral di gisante rek kenn ki nga gën a bàyyi xel trop. Hmm, dina ku ci xam ne ku góor ki dina ñëw ci yow dégg seet na ne bi si mooy bi nga duggaat ci biir sëy mais ci biir néegu sëy boobu da nga am àndandoo boo xam dalay lay feeñu da koy gis te boo koy gis da lay feeñu mel ni image yu nit mbala mu joxe jëmm koo xam sëñ Moussa ah. seet na ne liy faral def loolu mooy rawaat rab boo xamante day ñëw ci yow par guddi mais saa yi day bëgg nga ànd ak moom ba dina la jaaxal mais seetlu saa yi ñëwee boo xëyee da feebar. nee kooku noonu nee sa diggante sa jabar bu dëddale moom moo ci nekk de kenn dëddewul seen seen sarab bee ko dàq maanaam mu waroo takk ku xamul dara mbala ku amul bopp koy takk yi day fekk mu am lu mu xam dégg nga yaa ngi dégg yaa ngi léewtoo nag yaa ngi léewtoo mais li ngay léewtoo sotteegul ku jigéen koo xam dangay wax ak moom ci ay kàddu baat ak tontu la seet wax neen jigéen bi boo jëflantee moom day ànd ndax lay wax sincère bu dëgguwul daal nit ku foo ngay waxal yenn saa yi mu jaaxal la neen sëy yenn saa yi daf koy proposé mais day jékki-jékki da lay nëgëj seet nee na di nga ko tàkk na jigéen jooju ku la bëgg la mais góor it mooy ruubandaat di yàq xelam ci yow dafa mel ni mi ngi xaw a am tuuti jafe-jafe ci wàllu connexion bi ñu lay ñaan nga jël numéro bi mu di 77 060 43 10 wala numéro bi 78 243 48 44 du ñu def euh, lu dul dugal euh, keneen. dina ma neex boo dugalee keneen Babacar ndax seet ba mu daal waaw da ñu ngi ñu ngi gis ne ñu ci bëri ñu ngi kaas ne topp ñu rang bi ak yooyu waaye des fois il faut ñu xaw a respecter parité bi tuuti ndax list bi daanaka. li fi tegloo ci jigéen dañoo bëri loolu du ñu def euh, lu dul euh, jël kii salaamaaleykum. salaam ñu ngi lay nuyu di la ziar. nga gars yi ñoo war a comprendre. am na solo. Mhm. am na solo salaamaaleykum. waaw yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama si ñu lay ñaan nga fàttali ko at yi ak tur bi allo allo asalaamaaleykum wa rahmatulah. soxna si na def. mbaa tur bi naka la. maa ngi lay ziar. tur bi nan la. yëkkati bi yëkkati kàddu bi soxna Aïssa ay sa borom 30 ans ay sa Rassoul ñu ngi lay ziar ñu ngi lay màggal ay sa def faral bu saraxe lu neex lu saf suukar maanaam lu mel ne fil bi dee ko génne nga di koy saraxe de nga boo ko dee génne jàmm la ndam la te seetee na boo ko dee génne incha allah dina baax ci yow seet na cat gi bari na werante xol bi bari na ndam ci yow mbir mu yaatu ci yow seet na di gudd fan di dund ba sant yàlla neen wut kaamil alxuraan nga sarax ko imam ndax itam nee na bopp bi day faral di metti yaakaar yi bari ni mu tas yaram bi di faral di ay sa dama nekk ci place mbooloo allo. nekkoo ci place mbooloo mën ngay liggéey liggéey mbooloo soxna Aïssa. liggéeyoo dara ci place mbooloo. liggéeyoo. waaw seet nee na nga wut liggéey na boo amoon place mbooloo dina baax place bu ay nit di ñëw di dem di ñëw. nee boo ko toxoon day sotti incha allah bi ndax say mbir boo waajee doo ko def. seet nee na danga mës di liggéey ci place bu mbooloo nga arrêté. ah. mosoon na gàllaaj boo. mosoon naa liggéey foofu noonu dama beneen classe it boo xam ne di nga ko am. seet nee na mu taxaw wàllu reetaan nee sant yàlla. nee na di am ndax sa diggante góor day xaw la ndam ba day tëj sa bopp génne ma kilo buróom kilo livre petit cola. ñeen nga saraxe ko mais pour lëndëm lëndëm yi nekk sa diggante góor gi yàlla daal di koy saafara daal di koy teg yaa may dégg allo. neen sa diggante góor gi dafa dafa jaxasoo. teg nee di nga kontaan nga taal benn buus yi nga ñaan si yàlla faj sa soxla ay sa lan moto boo jëlee. même sangatu nga am ay te yi nga am du la du la protéger mais daf lay yàqal au lieu mu di lay protéger ba nibu la mën a dara mais daf lay yàqal te lim lay yàqal moo ëpp lim lay protéger seet delluwaat ba tey nee xam nga lan ngay def nee na ba boo duggoon si sëy tey mën na koo tas nee noonu sa ay rab di defee ak yow ba yenn sa xol day faral di tàng nga énervé wu sa bopp di tëju génne ma ginaaru ñetti couleur ginaar boo xam ne couleur bi dina am blanc am noir am rouge neen rouge bi day mel lu mel ne ci ci lu génnee ko nga sànni ko góor ba gis ko nga jox pour li nekk ci yow daal di dañ nga tojtalu loolu mooy tojal yaram bi carrément sinon boo ko deful di fi yàgg mbir yi dina gàllankoor dina xaw a lënd ba dina ko mais da nga découragé da nga désolé yenn saa yi nga jël sa sa yenn saa yi nga suba di dinaa saraxe laa mbala naa saraxe ceeb te pourtant boo doon génnee sarax sa alal day bari boo doon génnee sarax tolof tolof yi ngay jàkkoonte ak gàllankoor yàlla suñu borom dafa daal ndax benn am nga ñaar waajur ñaar pourtant boo ko doon génne lu baax la. waaw boo ko doon génne dina baax te di ci avancé. seet ne la instant yi da toog di xalaat xalaat bu boo xam doo comprendre boo xëyee day mel ne yow nga xëy tey benn suba nga xëy sa xol du neex. waaw seet ne ngay dalal sa xel nga génne ñetti saabu yu nga saabu. seet ne di nga ak jàmm ànd ndam neen sa bu ragal déception bu ragal day euh, bu ragal jóge ci tolof tolof neen saa yoo ko ragalee yàlla day toog seetaan la ak say problème ci natt bi dem ci bee nga jóge ci biir dem ca bee te saa yoo jógee ci natt yàlla daf lay jox solution boo xamante ne da koy tuddee ba nga am jàmm seet ne la ngay dalal sa xel te ngay génne ndox mi seet nga di koy saraxee del faral di sàlloo njàpp saa yoo génn sa kër boo ko dee def incha allah li nga doon am bu dee benn dina doon fukk jël numéro bi nga jël numéro bi mu di 77 060 43 10 incha allah après nga jokkoo ak moom mu gën ci indil ay leeral. baax na jërëjëf ñu ngi dugal euh, Soda Diallo soxna Soda ñu ngi lay nuyu di la ziar. soxna Soora ñu ngi lay delloo ziar asalaamaaleykum ñu ngi ci jàmm bu baax mbaa yaa ngi ci jàmm yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama asalaamaaleykum soxna Soda ñu ngi lay ñaan. ñu ngi lay ñaan nga may ñu nga may ñu tuuti. maa ngi lay yaa ngi ci jàmm. asalaamaaleykum. Oh, baax nga gis na ni ma ko uh, soxna Soda. dañ lay ñaan nga déplacé wu tuuti incha allah dinañ la dugalaat dans un instant sëñ bi ñu lay nuyu di ah soxna si baal baal ma maa ngi jégalu bu baax a baax ñu ngi lay di la ziar. alhamdulilah yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama. d'accord. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam. ça va. ça va bébé alhamdulilah yaa ngi jàmm. ça va bien bi. Naar Sarr. Naar Sarr. waaw Naar waaw. waaw borom 21 ans. seet nee na lëndëm lëndëm nee na di nga kontaan di nga am ndam seet na di nga gudd fan di nga toog ba sant yàlla du samay wax waxi seet la jël génnewoon suukar biscuit tàngal tàngal ma nga génne ko jour vendredi nee na nga seddale ko ay xale dégg nga. voilà. yaa ngi ci lëndëm lëndëm la ci wàllu relation ba sa bopp dañu faral di tëdd. seet na li indi lëndëm lëndëm yi góor ñu bari dañ la topp mais dañ lay jaaxal yenn saa yi da nga xaw a ñàkk kersa da nga xaw a gàtt wax seet nañ ko bàyyi a lëndëmal sa ay mbir neen ku la gis da lay bëgg macha allah ndax mbind mee mel noonu yàlla moom moo la ko defal naa da ngay yi liggéey. damay nga def benn formation mais danga koy admis ci kàttan suñu borom dégg nga. Oh, seet neen fan yi da nga découragé góor da say tamit. sëy ah kay ah kay moom moo woon sonal sax man am xel ñaar yooyu. pourtant sëy bi baax na de te sëy bi am na mucc am na gudd fan. waaye gars yi dañu ma naan ay mag. waaw léegi yow yaa ngi lay sori que tey jii am na ñoo xam ne bëgg naa la wax ne sama yoon. bu amal baax la jikko yu bon la Sénégal incha allah loolu boo ci tuddee loolu la rëccu te boo ci tuddee waa ji dama ne ko takk macha allah bëgg na la dem te dañoo may daanaka ngay tax la la neex dinañ cee waxtaan nga ma ne waa ji boo ko wàccee ci ñoom ngay wax moom ci te sa bopp dugal sa bopp dina dugg ci biir sëy bi sëy bi na dañuy ko am na ñoo xam ne dañuy mën nañoo yàq sa te dañ la yee ñeenti nga fee am boo ci sëy bi dañ ci kontaan dañ ci am ndam sëy bi am dara loo sa weer yooyu fajal sa soxla li ngay am bu weer yooyu daa ñëw sa ay problème te moom daanaka rek moom am na yàlla ci ñu sëgal te doon fàttali ne ñi nga xamante ne ñooy commentaire nee nañu nga jël sëy commentaire yi nee nañu nga jël sëy léegi li ñu lay ñaan mooy nga jokkoo après ak soxna Mbaye yow incha allah en privé rek yéen a nga gën a mën a ci waxtaan ndax wàllu sëy doon loo xam ne du lu ñuy waxoon incha allah numéro bi di 77 060 waaw dañ lay ñaan kon incha allah nga jaar waa baax na Uh, fii boo ñëwee incha allah. 10 heures 10 heures wàcc ci 7 heures. 10 heures ba 17 heures ñu ngi fi. waaw 10 heures ba 17 heures. incha incha allah. waaw ñu ne ñu ne ñu ne nga jël sëy bi baax na jërëjëf. salaamaaleykum. soxna Fatou yaa yaakaar naa sa yaakaar ak a sut. waaw ah, kon baax na macha allah. macha allah yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama. asalaamaaleykum wa rahmatulah sama mbokk. waaw ñu fàttali ne rek képp ku nekk ci ne rek sa wërsëg incha allah. ci nekk dafa xaw a bëri tuuti bi ñu lay ñaan nga déplacé ngir dégg nga dégg bi gën a mën a di nga am doomu jigéen neen ci biir doomu jigéen boobu bu juddu dina jàpp biir yu metti dina ko sonal loolu loolu loolu mu bàyyi loolu dara bés ko amee léegi dama dama dama koy taal fàtte yi koy mu koy laaj ci biir dee neen sa doomu jigéen bés bu juddoo dina jàpp biir yu metti mais danga jël bu doxo zam-zam nga def ko ci saasa waaye nga taal fàtte yi mu ko am nekk yow nga biir ko ci xobi di biir bu ko fàtte boo ko fàtte mën nga ko nee na ba tuuti gi ngay waxal nee na nga jàpp yow dina tuuti nee na ku la bëgg la ku la jox bopp mais jigéen jàpp ne nekk nga la waaj a def ba dina ko jaral moom ci jóge ci def jéego nee na dina ci def jéego boo xam ne du sa gën a yàlla du soos ku li ci bébé du am mais du am na lépp ñu wax ne am na boobu yéen ko jëlee na sax ko soxna di faatu incha allah soxna di faatu ñu ngi lay ñaan nga jël numéro muy 77 060 43 10 77 060 43 diis incha allah nga gën a jokkoo ci kàddu yàlla mu seetal salaamaaleykum soxna Aïcha waaw jërëjëf kontaan naa ci yow léegi kontaan nga sa dal na allah soxna Mariama si yéen a fi nekk soxna Mariama yéen a fi maa ngi lay màggal bu baax a baax aji aji tool si ñaata. vingt et un aji tool ci benn tur bi naka la. Assoubé. ah uh, jéem a sàmbal yéen. soxna si ma sàmbal ma naa ko ko yàlla taal sama am moo xool dem si dem saalum naat naat dugub bala nga jënd naat dugub ni mu tolloon sax na sarax ko beneen as boo ko defee dina baax gis naa xel bi dara ci biir néegu sëy boo xam ne nag nee sa bopp day faral di tëju asu ah yaa ngi dégg waaw da nga nekk ci biir sëy waaw nee na dama wóolu la mais incha allah dama waa génn ma ci def soble. waaw mais saa yi da ngay bëggee ci sëriñ ba nga sëriñ di xaw a lëndëm soxna si tey seet na sëriñ pourtant boo ci coowoo dana ñëw mucc nee na jigéen ñi mag day jëli lu wóor ci def sëriñ waaw génn ci def soble sa dëkk dina tàgg yow day ci dem ci réew mais ci biir dem boobu boo xam ne dañuy xam lu mu am ci lu mu xamoon te la ñuy yaakaar ak la ñuy ko am ndax boobaa ci dugg mel ni loolu doo ko mën a wax as waaw man sa dëkk day day jàpp yoon dana tiim réew ñu nga taal yoon day dem demagul demagul mais day dem mais si biir dem boobu muy dem na di jóg di def jóg def jàlla di da ngay bokk xam si biir téere da ngay gis bokk xam ne ñax ba pare nee na soo ko jëlee ba ñax ko dana fekk góor bu toog yàlla nga jox ko deneen loolu pour sa wàllu am pour sa wàllu am seetlu ma ne dibiteeri bopp dibiteeri bopp xanaa nga yàq ma ci dibiteeri ndax sànq bu nekk góor bu mag nee na génn ñoo xam seetlu ma ba da nga seetlu loo ay waaw nee na nga da nga ne dibiteeri ba nga laqul ko bopp xanaa réseau bi euh, réseau bi mooy xaw a am tuuti jafe-jafe dañ lay ñaan nga jël numéro jëlal numéro ba pare nga woo temps bi 77 060 43 10 77 060 43 10 incha allah désormais ba tey réseau bi dafa xaw a am tuuti problème waaye ñu def lu dul dalal kii di Aïda Dieng yàgg na loolu ci réseau bi salaamaaleykum soxna Aïda. mbaa kontaan nga. ah ñu ngi ciy jégalu bu baax baax. yaa ngi jàkkaarloog soxna Mariama ñu bàyyi la nga waxtaan asalaamaaleykum wa rahmatulah Asou na nga def. waaleykum salaam. ñaa ngi ci jàmm. allo ay sabu. soxna Aida. allo soxna. soxna Aida. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar yaa ngi jàkkaarloo soxna Mariama. waaw. tur bi nan la. ñaata ay ñaata at ñaata at la waaw borom 24 ans seet na sax na ay da génne ñebe bi moom kilo mu sarax ko ba jox ko jigéen ne allo salaamaaleykum ñu ngi leen di ziar mbaa yéen ci jàmm sur Salam Vision